jigéen ñi ak yàlla su nettali tey ji mooy ku ñuy wax maryaama sotti na yeesu laj koloñ nettali bi mu ngi cosaanoo ci macë saar ñaar fukk ak juróom benn aaya ñett ba juróom ñeent yowana saar fukk ak ñaar aaya benn benn juróom benn fan moo desoon balaa màggalu bésu jéggi ba ci yawut yi te nit ñu bare daan ñëw yerusalem ci xew ba it ngir màggal ci kër yàlla ga yéesu ak si fi maryaama màrt ak lasaar dëkkoon lasaar la yéesu dekkaloon ñu doon nag def reer bu mag ngir berndeel yéesu ca kër Simon nit ku gaana woon ka Màrt doon na séddale ñam ya te fekk Lasaar mu nga woon ca ñoom Yeesu Maryaama dugg ca néeg ba yor ab njaqu albatar bu def liitaru laj koloñ bu jafe njëg ñu naan ko nard mu sotti ko ci bopp yéesu ak ci tànk yi ba noppi fomp leen ak kawaram kër ga yépp fees xetu laj koloñ ba ba ñenn ci taalibe ya gisee loolu ñu mer kenn ci ñoom di yuda iskariyo mi mujj wor yéesu ne lu tax jaayewuñu laj koloñ ji peyu atum lëmm jox ko miskin yi waaye bi muy wax loolu xalaatul woon miskin yi ndaxte sàcc la woon moo yoroon boyetu xaalis bi te daan ci sàkk waaye yeesu gëdd ko ne ko bàyyi ko jigéen ñi defal na ma jëf ju rafet lu tax ngeen di ko sondal dafa waroon denc lajkoloñ bii ngir man bi mu sottee lajkoloñ bi ci sama yaram def na ko ngir sama bésu rob di nekk ak miskin yi bés bu nekk waaye ci kanam du ngeen ma mën a gis ci dëgg maa ngi leen koy wax fépp fu ñu yéenee xabaar bu baax bi ci àddina sépp dinañu fa fàttali it li jigéen ji def bi ñu yëgee ne yéesoo nga fa mboolam yawut mu bari daldi dem betani yéesu rekk yóbbuwuleen fa woon waaye dañoo bëggoon a gisaale lasaar mi yéesu dekkaloon sëriñ su mag sa dogu ci ne dañuy reyaale lasaar ndaxte moo waral yawut yu bari dëddu leen gëm yéesu fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii kii ci li mu tuur laj koloñ bii ci sama yaram def na ko ngir waajal sama rob Matthieu saar ñaar fukk juróom benn aaya fukk ak ñaar